jërë ngeen jëf salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu ñuy safo di ñu bàyyi xel saa su ne ci digital la ñu amaat mbégte euh, dellu si ak yéen ci seen actu du jour comme nañ koy defee saa su ne euh, tey ci suuba nag déggoon ngeen euh, ñu daal di annoncé conseil supérieur de la magistrature bu ñu sukkandikoo kon ci journal boobule di l'observateur moom président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw di rupa ñeenti weer bi nga xam ni fal nañu ko ci bopp réew mi ñu doon xaarañ rek mu daal di amal boobule supérieur de la magistrature ni ki tey nag la euh, gannaaw rek euh, ba mu euh, daal di nit yu ya nga xam ni ñoom la war a rek daal di remplacer ak fi nekkoon ni ki tey kile di procureur Abdou Karim Diop kon daal di nañ koy rek remplacer moom procureur boobu lee di procureur Abdou Karim Diop mi nga xam ni kon rek daal di nay nekkoon procureur bi doon chargé kile di Ousmane Sonko ak itam kile di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci rek yenn ci euh, incident yi nga xam ni moom moo fi euh, jotoon euh, jaar ba tax nag ni ki tey ci conseil supérieur de la magistrature moom moom le di procureur Abdou Karim Diop ka ko fa wutu di Ibrahima Ndoye moom moo nekk kon nouveau procureur de la République du Sénégal bokk na kon ci ñi nga xam ni njëkk nañ leen a tëbal rek di procureur boobu le di Abdou Karim Diop ni ki noonu itam moom mi nga xam ni moom moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dinay eh, jël itam ki nga xam ni eh, moom moo di Omar xam Diallo bi nga xam ni itam ràññewoon nañu ko lool ci dossier eh, kii la di Ousmane Sonko ak Adji Raby Sarr moom nag daal nañ koy yóbbu foofu la ca Tambacounda nommé ko président de chambre de la cour d'appel noonu lañu ñu rek daal di gisee kon gi les xibaar monsieur Amady Diouf moom itam précédemment premier président de la cour euh, d'appel de euh, Dakar moom itam affecté nañu ko à l'administration centrale euh, du ministère de la justice noonu la ko kii lee nga xam ni moom mooy président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye doxalee monsieur Sabassi Faye précédemment président du tribunal d'instance de Ziguinchor moom nag nommé nañ ko président du tribunal de grandes instances de Fatick ki nga xam ni nag moom moo di monsieur Mamadou Diouf précédemment conseiller à la cour Cour suprême est nommé président du tribunal de grandes instances hors classe de euh, Dakar noonee kon la rek yëfi daal di euh, tëddee euh, monsieur Abdoul Aziz Diallo précédemment président de chambre à la Cour d'appel de Dakar est nommé doyen des juges d'instruction du tribunal de grandes instances hors classe de Dakar mu mel ni ko kon comme rek ni mu ko annoncé woon euh, li nga xam ni nag moom moo di magistrature bi daal di nay assemblée bu baax a baax maanaam kii la di président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay gannaaw rek ba mu amalek ak Aziz ci yenn ci euh, sénégalais yi nga xamante ni si ni kon jàpp nañu ne dañu dund rek injustice gannaaw ba ñu ca tënkee euh, daal di nay rek jublu ci li nga xam ni kon moom moo di magistrature bi kii la di monsieur Mamadou Seck précédemment juge au tribunal de grandes instances hors classe de Dakar et mais avocat général près la cour d'appel de Tambacounda moom itam euh, jël nañu ko moom euh, Mamadou Seck bi fi nekkoon euh, juge du deuxième cabinet yóbbu ko foofu la nga xam ni moom moo di ca Tambacounda kon nooné la ñu ko daal di defee mu mel ni que moom Mamadou Seck ak kile di Maham Diallo ñoom ñu dem foofu la nga xam ni ah, moom moo di ah, ca Tambacounda gannaaw ba nga xamante ni kile di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di nay jël ah, googile dogal li nag kon mi ngi xew rek ci bésub tay ji gannaaw ba nga xamante ni kile di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon nag daal di nay rek amal li nga xam ni moom moo di bile conseil supérieur de la magistrature nga xam ni kon euh, sénégalais yu bare bare ñi ngi ko doon laajte ak itam euh, doon ko xaarandi kon mu mel ni que fii ak ay fan yu néew manees na njortu ni rek yenn ci ay dossier yi nga xam ni euh, sénégalais yi ñi ngi doon xaar mu dem ci yoon nekk itam rapport cour des comptes yu ni mel manees na am yaakaar wala kon ñi nga xam ni kon tabbu nañu leen yees danañu daal di jublu ci li nga xam ni mooy ji liggéey bi ndax lii moom la les sénégalais doon xaar ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu dem léegi léegi ñu indi laatal leen yeneen ci gën yaatal ak faram fàccee ci yeneen xibaar yi nga xam ni rek ñu ngi fi roti ñu wax leen laata loolu wéy leen di abonné bos aussi ci cloche de notification bi ndax suñu ay programme dafay wéy di continuer ak yéen jërë ngeen jëf